mbugal mooma ndax daan nañ leen digal daan leen tere falamma nasuu maa dukkiru bi anjayna alladina yanhawna an suu wa axadna alladina zalamu bi adabin baisin bi ma kaanu yafsiqun yàlla nee na ñooñam ma digaloon ñu tënku ci samay ndigal wacc samay tere ba ñu dëddoo won gannaaw ndigal yooya di xuus nuur ci tere yooya am ñu leen daan tere yu bon yañ daan def nanguwuñ leen caa wuyu yàlla nee na ba ma leen di alak dama lee damaa musal ña leen daan digal ak tere seppi leen ber leen ña nga xam ni ñoo doonoon tooñkat yooyu yàlla nee na ma mbugal leen mbugal moo xam ni mbugal mu bon la mbugal mu yées la ngir seenu caay-caay ga ñu nekke woon kon loola yëpp alquran la te dafay wane ni woote ci yàlla eh, non seulement yàlla da ko digle waaye yàlla dafa joxe ay tegtal yoo xam ni yow wootekat ba ca tegtal yooyu nga war a jaar ci ni nga war a comporté woo yow ci sa bopp waaye it wane na ña nga xam ni dañu wuute woon ak ndigal am ñu leen mënoon a tere te daawuñu leen tere ba muy mbugal ñooñu daf leen boole mbugalaale leen ñeneen ña nga xam ni dañ daan wuuteeg ndigal am ñu leen daan tere ñooñu ba muy mbugal ñooñu dafa seppi ñu leen daan tere ber leen dal di mbugal ña des kon loolu yëpp day wane ni woote ci yàlla dafa am solo lool ndax mooy wawaif yi nga xam ni moom la yonent yi gàlloo woon def ko seenu métier daan ca liggéey eh, bu ñu jógee ci bunt boobu dañuy dem ci li nga xam ni mooy ahdaafu woote ca yàlla woote gi ñuy woote ca yàlla lan lañu ca daa jublu lan lañ ci war a jublu eh, jubluwaayu woote ca yàlla bari na lool bokk na ci bayaanul xaqi wal balaagul mubiin bayaanul xaq mooy leeral dëgg ak jottali goo xam ni jottali gu biir la jottali gu fés la euh, jottali bokk na ca la koy firndeel li sunu borom wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yaa ayyuha rasulu ballig ma unzila ilayka min rabbik ndax yonent bi ñaar la ko yàlla joxoon alquran la ak lay leeral alquran di ko firi alquran ja nag moom la ko wax ne ko jottalee ko ni ma la ko jàngale yow yonent bi jottali lii ma wàccee ci yow mu jukkee ci sa borom eh, kon loola ak woote la kon yonent bi wooteel nit ñi jëm ci alquran jii nga xam ni moom laa wàcce ci yow mu waxati ko ne ko wa anzalna ilayka dikra li tubayina linnaasi ma nuzila ilayhim wa laallahum yatafakkaruun wàcce naa ci yow alquran waaye nag soxla naa it namm naa nga leeralal nit ñi alquran jii ma wàcce ci ñoom ndax alquran bi am na ci laaya yoo xam ni boo leen ko leeralul boo leen ko feccalul feccilul duñ ko mën a feccil seen bopp kon loola lépp day wane solo si nga xam ni moom la woote jëm ci yàlla am ba tax yàlla jox yonent bi ñaari ndigal yu jëm ci woote benn bi mooy jottali alquran beneen bi mooy leeral ak firi la nekk ci alquran kon bokk na ci hadafi woote jëm ci yàlla mooy jottali alquran ak leeral alquran leeral boo xam ne leeral gu biir gu fees la bokk na ci it ci ahdaaf yi euh, naxanteeg nit ñi pour ñu wuusi woote bi yàlla bi jëfe ko ci wax waaye jëfe ko ci jëf loolu tax na sunu borom daan wax ne moom yooyu yàlla kat wala qad baasna fi kulli ummatin rasulan an yabudullaha wajtanibu taaxut mu jël woote yonent def ubbitey woote boobu mooy ne nit ñi nañu jaamu yàlla moom rek te bàyyi taaxut nga xam ni mooy seytaane ak xërëm yeeg xàmb yi yàlla ne na yonent bu ma mës a yónni loola laa ko yónnee ne ñu jaamu yàlla rek kon nañu wuyu si woote yi leen yonent yi di woo ci jaamu yàlla ci moytu jaamu taaxuut te mooy xërëm yeeg saytaaneeg lu aju ca yooya e, bokk na ci it hadafi woote mooy ak tabshir wal inzaar bégle ak xuppe ndax ña woo ñaar lañu ñii danañu wuyu si ñii danañu lànk ña dëgër bopp nga xupp leen ña wuyu nga bégal leen wa maa nursilu lmursalina illa mubashirina wa mundirin yàlla nee na ma yonent yi lu dul ñu doon ay déglekat doon it ay xuppekat ndax ku ci nekk yonent yi daan nañ jëflanteeg moom ci dayo bi nga toll ci wuyu seenug woote ak ñàkk wuyu seenug woote googu bokk na ba tey ci jubluwaay yi am ci eh, woote jëm ci yàlla islaahu nufuusi wa tazkiyatuha yéwénal bakken yi ak sellal ko defar nit ñi ci gàttam kon defar nit ba dawru bi tax suñu borom wàcce ko ci kaw suuf mu mën a jooxe dawru boobu comme ni ko suñu borom bëggee li tax yàlla wàcce ko ci kaw suuf mooy mu jaamu ko sellal jaamu ga kon woote ci yàlla bokk na ca la ca suñu borom jublu mooy day defar nit ñi ba tax mission bi tax yàlla wàcce nit amaana bi tax yàlla wàcce indi nit ci kaw suuf nit ki man ko jooxee comme ni ko sunu borom bëggee subhanahu wa taala moo tax sunu borom di wax ni huwa alladi baasa fi l ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba walxikmata wa in kaanu min qablu la fi dalalin mubin nee na yàlla moo yónni ci arab yi eh, ci biir arab yi waxul baasa ila al ummiyin waaye fil ummiyin ci biir araab yi loolu la muy tekki mooy nii yonent bi ci seen biir la jóge du ni ci araab yi rek lañ ko yónni waaye nag ab araab la bokk ci arab yi te araab yi am mbind akum njàng bariwul woon ci ñoom moo tax mu ne moom yàlla mooy ki yónni ci biir arab yi nga xam ni am njàng bariwul woon ci ñoom yónni na ci ñoom ab yonent bu bokk ci ñoom yonent boobu nag saa su ne mi ngi leen di jàngal aayay yàlla yi te muy alquran waaye mu ngi leen di tàggat di leen defal di tazkiya seeni bakken di tarbiya seen ruux di leen defal di leen jàngal téere bi di alquran di leen jàngal it xikma te imaam Shafii nee na xikma mooy sunna di leen jàngal sunnaam te fekkoon na lu jiitu loolu ñu nekkoon ci cànkute cànkute goo xam ni gu bir la kon nga gis ni yàlla ba muy wax la tax mu yónni yonent bi nee na bokk na ci ngir mu jubbanti nit ñi defar nit ñi namru yi defar bakken yi ba mission bi tax yàlla bind doomu aadama doomu aadama yi mën a joxe mission boobu ba keroog buy dajeeg yàlla fekk mu mën a at ngir mën a am ngërëmal sunu borom bokk na ci ahdaaf yi ba tey iqaamatul xujjati wal i'daar ila bi adaa il amaana nee na bokk na ci eh, taxawal aw lay taxawal aw lay ak dogut ngànt wëlis doomu aadama yépp ndax nag yàlla ba mu bindee doomu aadama ca ba mu leen waxee alastu bi rabbikum ñépp a d'accordoon ci ne ko yow rek yaay sunu borom yaay sunu boroom nag la muy tekki mooy ni bu ñu wàccee ci àdduna yow rek lañuy jaamu yow la ñuy jaamu la muy tekki mooy ni li la neex ci la ci la ñuy nekk li la neexut duñ ca nekk waaye nag kenn ci doomu aadama yi ba nga juddoo ba màgg fàttaliwuloo fàttaleekuwuloo loola fàttaleekuwuloo bis ba yàlla di wax alastu bi rabbikum yonent nag bu bu doomu aadama yi desoon noona ba wuyu yi seen borom bu leen laajee dañuy wax ni fàttaliwu kuuma ko ndax kenn ci ñun fàttalikuwul bis booba ku ko jàngul xamoo wa ni loolu mas ngir nit ñi bañ a yey yàlla ngir ñu bañ a am aw lay ci kawam moo tax yàlla dog ngànt loola moo tax mu ne rusulan mubashirina wa mundirin li an laa yakuna linnaasi ala allahi xujjatun baada rusul wa kaana allahu azizan xakima yàlla nee na maa yónni yonent yi ñu doon ñuy bégle doon ñuy xuppe ngir nit ñi bañ a yey yàlla bis penc ëllëg bis penc li allaa yakuna linnaasi ala allahi xujjatun baada rusul ngir bis penc kenn bañ a am xujja kenn bañ a am aw lay ca kanamu yàlla bis penc looloo tax nee na mu yónni yonent yi ngir mu fàttali amaana googa nga xam ni moom la jàppoo ak ñun ci lu jëkk ñuy ñëw ci àdduna kon ay qaamatul xujjati wal i'daar ila llahi bi adaayil amaana loola dafa bokk ci jubluwaay yi tax sunu borom digle jullit ñi digle yonent yi ñu woote jëme ca moom kon muhimmay yonent yi mooy woote waaye muhimmay yittey ñi nga xam ni ñooy ña topp ñëw ca gannaawu yonent yi surtout bu fekkee ni dañu doon ay borom xam-xam seen muhimma it moo war a doon woote ci yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom it firndeel na yàlla wax na ko loolu pour mu nettaliwaat ko ci alquran qul hadihi sabili ad'u ila allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani mu ne yonent bi waxal ni woote jëm ca yàlla day wala lii ma day mooy sabaw yoon yoon wii la ma ci yoon wii it la ma teg ma tegu ca dox ca te yoon wa mooy lan dama doon kat jëm ca yàlla woote lay def lay sama liggéey mooy woote jëm ci yàlla waaye woote goo xam ni dama ci ànd ak ay dalil yu wër kéŋ woote goo xam ne àndul ak teñax teñaxi woote goo xam ne àndul ak à peu waaye woote la goo xam ne day tegu ala basira tegu ci xam-xam tegu ci gis tegu ci yeewute nee na sama woote ci loola la tegu ndax nag yàlla ba mu digalee yonent bi pour mu woote dafa melal yonent bi na ko wa daaiyan ila llahi bi idnihi wa mu niiraan nee na woote ga muy woote ci yàlla lu mu cay def ci ndigalal suñu borom la koy teg wa daaiyan ila llahi bi idni kon wooteem lépp lu mu cay wax lu mu cay def ci ndigal la ko daa teg kon looloo tax yonent bi ne yàlla ne ko waxal ni hadihi sabili lii ma nekk nii day mooy sama yoon wi nga xam ni fa la ma suñ borom teg te ca laa tegu mooy woote jëm ca yoonam wa waaye it woote goo xam ni lu ma cay wax lu ma cay def dama koy teg ci xam-xam waaye yemut ci xam-xam waaye dama koy teg ci ndigalal sunu borom it mu ne man noona laa mel waaye samay gaa ñi topp ci man it loola mooy rôle woowa ma am mooy seen taxawaay ñoom tamit ci woote gii kon loola day firndeel ni li yàlla digaloon yonent yi ci anami woote lu mel noona it la digal ña nga xam ni ñooy boroom xam-xam yi ci ab taxawaay woo xam ni dañ ko war a am ci woote jëm ci yàlla kon bu ñu jógee ci loolu dañuy dem ci arkaanu daawati ilallah woote jëm ci yàlla it dafa am ay ponk dafa am ay keno yoo xam ni ñoo téye woote booba dafa am loo xam ni ca la woote ba di aju te loola ci gàttal boroom xam-xam yi nee nañu ñett la ba ca jëkk mooy aji woote ji ñaareel bi mooy kañuy woo ñetteel bi mooy lañuy woote jëm ca te waxoon nañ ca la weesu ne woote jëm ca moom mooy lislaam bu ne nee lislaam mooy alquran mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ñi nga xam nit ay niti yàlla lañ yoo xam ni ñoo roy yonent bi cim njàngaleem roy yonent bi ci wooteem seeni woote yépp mooy woote bi nga xam ni mooy mooy la nga xam ni moom la ñuy woote jëm ca waaye bu fekkee ni aji woote ji nag aji woote buñ la ko waxee mooy kii jottali lislaam mooy kii jottali woote boobu mooy kii jàngale xamle gi nga xam ni moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan xamle mooy kii doxit jëm ca ji ci appliqué ci jëfe ndigal yooya kon kooka mooy ki nga xam ni mooy wootekat bi wala ñu ne wootekat bi mooy mukallaf bi nga xam ni moom la wékk ci ndoddam pour mu woote jëm ca yàlla kooka nag laa budda xam nan la war a mel ak moom mooy kan mooy kan moom mi nga xam ni moom la ñu gàll ci ndoddam pour mu taxawee woote woowa kon kii woote jëm ci yàlla ginnaaw bu ko suñ borom xéewalee mu doonub jullit xéewal ko mu doon boroom xam-xam la shakka ni war na xam ni wootekat bu jëkk ba mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam ni yow mii di woote ka ngay roy mooy yonent bi sallallahu ndax mooy wootekat bu jëkk ba moom mooy ki nga xam ni moom la yàlla désigné woon tànn ko ne ko jiiteel ma woote bii ci lislaam yaa ayuhan yaa ayuha nabiyu inna arsalnaaka shaahidan wa mubashiran wa nadira wa daaiyan ila allahi bi idnihi wa siraajan munira moom la yàlla waxoon ne ko yow yonent bi man day dama laa yónni nga doonub seede mooy yaay seereel yonent yële fa ji yële fi jiitu woon nga doon kuy bégle it doon kuy xuppe waaye doon kuy woote jëm ca yàlla waaye woote boo xam ni lépp ci ndigalam nga ko teg waaye it nga doon làmp boo xam ni làmp buy leeral nga làmp buy leeral xol yi nga làmp buy leeral jikko yi nga waaye làmp buy leeral ak nite nga kon yow wootekat bi war nga xam ni taxawaay wii nga am muy taxawaayu bu woote sa royuwaay ca woote booba mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent booba nag lii ndigal lii la ko yàlla jox pour mu wootee waaye nii la ko yàlla orienté ci na mu war a wootee tax na sunu borom naan ko wadu ila rabbika innaka la ala hudan mustaqim désigné naa la kon jógal woote jëm ci yàlla ta nga xam ni nag yow yaa ngi ci yoonu njub yaa ngi ci yoonu jub yaa ngi ci gindeeku goo xam ni ci yoon wu jub xocc nga ne wadu ila rabbik innaka la ala hudan mustaqim mu waxati ne ko wadu ila rabbika wala takunanna min al mushrikin wooteel jëm ci sa borom te fexeel bañ a bokk ci ñi nga xam ne ay bokkaalekat lañu loola yépp ay ndigal la yu jóge ci sunu borom mu jubal ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ko orienté ci anam ga nga xam ni moom la war a wootee looloo tax yonent bi ba mu demee nag ba yàgg ci woote woowa daan na wone boppam cini li ko sunu borom digal du dara lu dul muy woote jëm ci yàlla waaye muy woote jëm ci jaamu yàlla bañ a bokkaaleeg yàlla dara nee na loola mooy wooteem te ca loola la sax dàkk qul innama umirtu an abuda allaha wala bihi ilayhi adu wa ilayhi dañ ma digal ma jaamu yàlla bañ a bokkaaleeg moom dara lii day mooy sabab woote man yonent bi waaye ci lii laa sax ci lii laa dëkk te duma ko bàyyi ba faw kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wazifaam comme ni ñu ko waxe mooy woote jëm ci yàlla te ci woote la sax nag ba keroog ba mu fiy jógee mi ngi seeraloo saxaaba yi ndax ci xijjatul wadaa mi ngi wax saxaaba yi ne yàlla kat daf maa digaloon ne naa jottali lam ma jox pour ngeen jot ci digal ma ne naa leen woo jëm ci yoonam wi amaana ëllëg dañan leen laaj ba xam la ma doon jottali loo jottali leen jottali naa leen ko buñ leen laajee lu ngeen di wax saxaaba yépp waxandoo ci genn kàddu ne la la yàlla digal jottali ngañu ko yonent bi dal di wax ne allahumma ashhad yow yàlla eh, seedeel ne lii nga ma yónni ci ma jottali ko samay nit jottali naa leen ko ba ñoom ñu ngi nii tey seede nañu ni jottali naa leen ko kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wazifaam moo ne woon daawa woote ci yoonu yàlla comme ni mu doone wazifa yi yonent yépp kon woote ci yàlla comme ni ñu ko waxee mooy wazifa yi yonent bu yàlla ma sa yónni ci kaw suuf bu ñu jël misaal ci yonent yàlla nuux yàllaa ngi wax ci moom ne laqad arsalna nuuhan ila qawmi fa qaala yaa qawmi abudullaha ma lakum min ilahin xayru kon nuux wootee nit mooy woote jëm ci yàlla mooy woote jëm ci jaamu yàlla saxal ni dëggal wéral dund ci ni amul benn buur bu ñu war a jaamu bu dul yàlla yent yàlla huud tamit loola la ko yàlla yónni woon jëm ci ay nitam wa ilaa aadin axaahum huuda qaala yaa qawmi abudullaha ma lakum min ilahin xayru la yonent yàlla nuux waxoon la mu doon woote jëm ca yonent yàlla Huud it ba mu ñëwee loola la doon woote jëm ca yonent yàlla Saalix loola la doon woote jëm ca yonent yàlla Shuayb moom it loola la doon woote jëm ca kon wazifay yonent yëpp moo ne woon woote ci yàlla subhanahu wa taala yàlla firndeel na ko ci anam gu gën a yaatu mooy laaya ju fi tuddoon sànq wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu llaha wajtanibu taaxut kon loola dafay firndeel ni yonent yëpp ci bokk yam seen woote moo nekkoon woote jëm ci lislaam moo nekkoon woote jëm ci yàlla moo nekkoon woote jëm ci e, jaamu yàlla te moytu bokkaaleeg yàlla e, ki nga xam ni nag moom lañu ñu takliif moom lañu ñu gàll woote bi ca kawam kan mooy ki war a woote jëm ci yàlla ki war a woote jëm ci yàlla ci anam gëmu gën a yaatoo booy jullit bu nekk danga nga war a doon wootekat jëm ci yàlla ndax nag ci jullit ñi la al ummal islamiya di formé woo ci la composé woo kon umma bi ay jullit ñoo ko composé kenn ku ci nekk da nga am masuliya da nga am responsabilité ci lii nga xam ni mooy wooteb lislaam nga bay ci sab nga bay ci sab def ci sa wàll eh, ba mu mat sëkk kon jullit bu nekk dañ laa togg dañ laa taklif ngir nga doon wootekat jëm ci yàlla donte nag seen dayog takliif dafa ëppante dafa wuute am na ñoo xam ni dawru ba yonent bi amoon moom lañu am ndax la yonent bi jàngale woon dañ koo jàng xam ko man ko lool ñooña moom lu tollook la gàllu woon ci ndodd yonent yi ci woote lu toll noonu moo gàllu ci seen kaw ñoom tamit ci woote surtout ginnaaw bi fi yonent yi jógee mu am ñoo xam ni it ah, seen martaba xaw naa gën a wàcc tuuti comme seen xam-xam yeggut fenn fi waaye am na ci wàll woo xam ni suñu borom may na leen ci ñu ràññee ci ci wàllu xam-xam wàll woowa it la leen ci war mooy ñu woote ci jëme ci yàlla ba wàll woowa gën a leer nit ñi kon woote jëm ci yàlla kañ ko takliif kañ ko togg ka ko war a def mooy jullit bu nekk donte seeni responsabilité ci wàllu woote woowa dafay ëppante eh, donte seen responsabilité tolloowul donte far fardu kifaaya la doon ci ñoom ñële mu doon ay ni ci ñoom ñii mu doon mustahab ci ñoom ñeneen ñi ku ci nekk dayo bi nga toll ci xam-xam ak dayo bi nga toll ci responsabilité kon woote jëm ci yàlla jullit ñépp la war yaa xam jullit bu góor la wala jullit bu jigéen la ndax ku ci nekk saa yoo gisee loo xam ni neexul yàlla ak foo ko mën a gisee la la war mooy nga digle ca lu baax digle lu bon euh, tere lu bon bu ko defee wàllu woote dox nga ci sa wàll sa kemtalaayu kàttan eh, jële nañ ci abu hurayra radiallahu anhu muy wax ni qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man raa minhum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisaanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dalika adafu l iman abu hurayra nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ni gis nga ci yéen gis ci say ñoñ loo xam ni lu yella di la nee na na nga soppi loolu ci sa loxo mooy na nga ko faj ca saasa ak sa loxo bu jaree dóore nga dóore bu jaree xeex nga xeex bu fekkee ni man nga loola bu fekkee ni toll nga ci dayoy al inkaar inkaarul munkar bil yad boo ko mënul nga dindi lu bon loolu ak sa làmmiñ mooy nga waar leen xupp leen ngir ñu jàjju ci munkar a ñu doon def boo ko mënul la gën a néew nag mooy loola soof la nga bañ ko ci sa xol te loola mooy li gën a suufe ci wàllu al inkaar inkaarul munkar kon jullit bu nekk wareef la ci moom imma farda aynin aw farda kifaaya muy woote jëme ci yoonu yàlla te mooy digle lu baax ak tere lu bon e, jullit bu nekk dafa war loola dafa war ci moom ka nga xam ni moom ngay woowit mooy képp koo xam ni yàlla def na nga tane ko ci xam-xam wala nga gis mu def loo xam ni amaana da koo def ci réer wala mu def ko ci rëy wala mu def ko ci féeteerlu war na la yow jullit bi saa yoo gisee loolu nga digal ko tere ko kon ñañey woo ñañuy woo dafa war a doon jullit ñépp ndax mission bu bi sallallahu alayhi wa sallama nit ñépp la concerné ndax yàllaa ne ko woon qul yaa ayyuhan naasu inni rasulullahi ilaykum jamia yonent ya ko jiitu woon ku ci nekk boo daan woote sa woote ci sa xeet la daan yem yonent yàlla nuux yonent yàlla huud yonent yàlla saalix yonent yàlla shuayb yaa qawmi lañ daan xaata banteeg seeni nit waaye yonent yàlla muusa ak isa ñoom yaa bani israil lañ daan xaata banteeg seen nit kon loolu la muy wane rek mooy ni ku ca ne ca ñoom ñooña yàlla daf laa yónni woon ci sa xeet waaye yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla da ko yónni woon ci ñëpp kon yow mi nga xam ni yaay ndonol yonent bi ci woote sa woote dafa waral a làmboo ñëpp képp koo xam ni sa baat jote na ci moom képp koo xam ni jàpp nga ni eh, nekk na ci loo xam ni neexul yàlla boobaa kooku la la war ci moom mooy yaatal sag woote ba mu jote ko ndax woote bi yonent bi tënkuñu ko woon ci ab xeet tënkuñu ko woon ci ab dii ab giir donte sax nag ci njëlbeenam eh, ngir at tadarruj fi daawa yàlla waxoon ne ko wa andir ashiratal aqrabin woowal say mbokk mu leen di woo di leen woo ba woo ba woote ba gën a yaatu yàlla mujje ko wax ne ko li tundira ummal qura wa man hawlaha woote ba mu gën koo yaatal màkka yépp waa taayif yépp dugg ci ak la nekk ci weti màkka mujj gi mu ne ko qul ya ayyuha nnaasu inni rasulullahi ilaykum jamia kon nit ñëpp la woote yonente bi sallallahu alayhi wa sallam concerné wooteem nag la mu ca jubloon mooy génn nit ñi ci lëndamuk réer ak ci lëndamuk kéefër ak ci lëndamuk euh, sikki sàkka yóbbu leen ci lëndamuk ci ci leeraayu xam-xam moo tax mu ne ko kitaabun anzalnaahu ilayka li tuxrija annaasa min azulumaati ila nuur bi idni rabbihim ila siraati alazizi alhamid man maa la yónni jox la téere téere boo xam ni dama ko wàcce ci yow ngir nga jaare ca génne nit ñi ci lëndëm yóbbu leen ci leer waaye lépp rek nga teg ko ci ndigalal sa boroom eh, teg ko ci ndigalal seen boroom teg leen ci yoon woo xam ni mooy yoonu yàlla te mooy yoonu lislaam eh, yonent bi subhaana yonent bi sallallahu alayhi wa sallama yàlla subhaanahu wa def ko it mu doon seere yonent bi doon seere ci xeetam ci wooteem woowa waaye xeetu yonent bi doon seere ci yeneen xeet ya wa kadalika jacalnaakum ummatan wasata li takunu shuhadaa ala annaasi wa yakuna rasulu aleykum shahida yàlla nee na ko man maa leen def ngeen doon xeet wu digg doomu ngir yonent bi doon seen seede ni ki ngeen doone seede yonent yi leen jiitu woon li takunu shuhadaa ala annaas wa yakuna rasulu aleykum shahida ne yàlla man maa la def nga doon seere say sa xeet waaye sa xeet ma def leen seere ñu doon seere yenenti ya leen jiitu woon kon woote jëm ci yàlla it laa budda wootekat bi xam ni dafa war a sàmmonteeg euh, xaalu ki nga xam ni mooy aji woote ji danga war a sàmmonteeg sa xaalu bopp sàmmonteeg sa man-man sàmmonteeg sa kàttan ca na nga xam ni noonu noonu ngay wootee jëme ci yàlla ca na nga xam ne noonu ngay woote jëme ci yàlla e ndax it nag woote boobu ngay woote jëme ci yàlla yàlla subhanahu wa taala du la ca sas loo xam ni munuloo ko du la ca sas benn yoon loo xam ni munuloo ko ca woote ba laa yukallifu llahu nafsan illa wusaha comme du la ca sas loo munul daf ci am wàll woo xam ni warula la yow wootekat bi kam war mooy ki nga xam ni moo amee kàttan am na wàll ci woote woo xam ni buur la war te am na borom xam-xam yoo xam ne nee nañu ñooña la yonent bi di xaata banteel ci fal yu xayirhu bi yadi ndax buur moo mën a soppee ci loxo ndax boo gisee ku def naka sudut noonu nga jël sa jaasi cor ko wala nga jël sa yar dóor ko bu riposté loola mën naa jur jur fitna soo xam ni mooy gën a rëy sax fitnay mooy googa mu mooy yàlla moo tax al inkaaru bil yad borom xam-xam yi nee nañu ka nga xam ni moom la ci yonent bi xaatabanteel mooy buur wala koo xam ni dafa am ak sañ-sañ sañ-sañ boo xam ni mën na koo may mu mën a soppi ak loxoom kon wootekat bi war nga xam sa dayo ba xam da dugg ci ña nga xam ni mën nañoo soppee ci seen loxo wala danga nga bokk ci ñi nga xam ne dañuy mën a soppee ci seenum njàngale soppe ci seen làmmeñ soppee ci seeni orientation ndax lu ci nekk rek dafa am ñoo xam ni ñoom ñoo ko moom yow wootekat bi it war nga jël woote bu ko wutal limite bu ko wutal palaas bu ko wutal bés bu ko wutal ñoñ foo xame ni rek barab bi manees na faa jaare woote jëm ci yàlla na nga fa woote yaa xam ni yaa xam guddi la yaa xam bëccëg la yaa xam ci biral la yaa xam ci yee ci ci yelu la yaa xam ci mbooloo la yaa xam porte à sax nga koy defee waaye war nga jël woote boobu def ko muy sa soxla saa ne ndax yonent yi woote dañ ko defoon saasu boo delloo ci yonent yàlla noonu ba muy kalaamee nitam ya te suñu boroom bokkoon na ca la mu ko waxoon qaala rabbi inni daawtu qawmi laylan wa nahaara fa lam yazidhum duaai illa firaara wa inni kullama daawtuhum li taxfira lahum jaalu asaabiahum fi aadaanihim wastaxshaw siyaabahum wa asarru wastakbaru istikbaara summa inni daawtuhum jihaara summa inni aalantu lahum wa asrartu lahum israara ana woote yépp yent yàlla nuux a ngi wax ni def na ko nee na yàlla kat man samay ñoñ woo naa leen guddi woo naa leen bëccëg taxut ñu nangul ma taxut ñu wuyu si ma kon loolu lañ cay jànge mooy yow wootekat bi sa woote bu ko amal ab bu ko wutalu guddi bu ko wutalu bëccëg foo xam ni maqaam ba mënees na faa jàllale ak woote jëm ci yoonu yàlla rek profité ci nga jàllale sag woote jëm ci yoonu yàlla ndax nuux ak yonent yépp seenu woote àppaluñ ko woon utaluñ ko woonu guddi utaluñ ko woonu bëccëg fu ñu amee occasion rek dañ ko fa daan jàllale woote ci yan woote ci biral moom la nuux it di wax ni summa inni daawtuhum jihaara summa inni aalantu lahum wa asrartu lahum israara woonaa leen ci biral ci mbooloo woonaa leen yuuxu leen ca kaw woo naa leen dee leen ci woote ga nu ne def naa ko fekk naa leen ku ci nekk fekk naa la sa biir néeg wax ak yow waaye daal ba tey rek mënumaa am ci ñoom ñu wuyu ma ndax ku nekk ci nit junni at yu manqué ci mbooloo ciw xeet junni at yu manqué juróom fukk te nee nañu bis ba muy dugg tuufaan la mu duggandoog ci tuufaan nga nee nañ weesuwul ñeent fukki nit ala kaw ci ku woote juróom-ñeenti téeméeri at ak juróom fukki at kon loola moo tax ah, texul mu xaddi taxut mu yokkat taxut mu am malal benn yoon waaye daa wéy ca woote ga ba keroog yàlla di àtte àtteem di àtte si digganteem ak ñoom woote bi bu ko wutalu barab foo nekk rek war nga fa mën a jàllale ak woote loola yent yàlla yuusuf war na la caa doy misaal ndax yent yàlla yuusuf donte mi ngi nekkoon ci kaso sax def ci kaso ba juróom-benn yaat teewul mu ngi doon profité di woote ci biir kaso ba jëloon na kaso ba def ko barabu woote kaay yaa saaxibay sijni a arbaabu mutafarriquuna xayrun am illaahu alwaaxidu alqahaar maa tacbuduuna min duunihi illaa asmaa'an sammaytumuuha antum wa aabaa'ukum maa anzala allaahu biha min sultaan in ilxukmu illaa lillaahi amara an laa tacbuduu illaa iyaah daalika diinu alqayyim walakinna aksara annaasi laa yaclamuun nga gis woote yonent yàlla Yuusuf ba mu koy def ba muy wax kàddu yi mi ngi ko fekk mu nekk prison mu nekk kaso kon yow it sa woote bu ko wutalub ab ba muy nekk kaso mi ngi waxat ña nga xam ni ñoom la bokkaloon selil bokk ak ñoom néeg ca kaso ba yéen ñi ma bokkal kaso ndax ay yàlla yu wuute yàlla ay yàlla yu bari moo gën walla yàlla mi nga xam ni mooy kenn ki nga xam ni moo noot lépp koo kookoo gën yéen ñi ma bokkal kaso bi li ngeen di jaamu jaamuwu leen dara lu dul ay tur ak i xërëm yoo xam ni yéen a ko wutal seeni bopp tuddeel ko seeni bopp yéen ak seeni baay xërëm yoo xam ni yàlla wàcceelu leen ci wu lay ndax yàlla rek a sañ a àtte te la mu àtte mooy ni nañ ko jaamu moom yàlla rek bu ñu jaamu keneen ku dul moom te lii mooy diine bi jub ji la ñuy jële foofu mooy yonent yàlla Yuusuf nekk ga mu nekk kaso nekk ci ay loxo nekk ci tëjte teewut mu ngi doon jàllale ak wooteem kon yow bi nga xam ne yaay wootekat bi sa woote ni nga ko war a wutalul ni nga ni nga xam ne noonu nga ko war a warula wutal temps naka noonu bu ko wutal barab boo xam ni ca ngay yemale sax woote xam ne bu ñu la nee conférence rek ci ngay woote ci ngay jàngale ci barab yooyu rek waaye bu amul conférence leneen lu jëm ci woote ci yàlla sa yoon nekku ca loola ab wootekat waruta waruta waruta mel noonu e, beneen bi mooy wootekat bi it na xam ni la ñu sàkku ci moom doonul mu forcer nit ñi ngir ñu wuyu ko waaye jottali woote bi yàlla bi rek ko war na ko jottali waaye këy gindikoo ku dul gindiku loola nekkul ci loxoom moom moo tax yàlla bu yonent bi masaa jàmbat na nga xam ni noona la nit ñi yéexe ci wuyuk wooteem ndax boo xoolee yonent bi woote na juróom-benn at bu ñee la Omar ibnul Xattaab mooy ñeen fukkeelu nit bu dugg ci lislaam te mu ngi dugg ci lislaam ci juróom benneelu atuk woote yonent bi kon nga xam ni toowu yokkute gi néew na lool waaye jàmbat googu yépp ak néew googu yépp teewul yàlla daan wax yonente bi saa su ne wa ma ala rasuli illa al balaagul li ma la war rek mooy nga jottali leen amaa nag kay jub ak ku dul jub amaa jël ak njub ak buyu def ko ci xolu nit ñi yow yonent bi mënuloo ko kadalika allahu yudillu man yashaa wa yahdi man yashaa yàlla nee na moom mooy sànq mooy sànq ku ko soob waaye it ku ko soob yow la la war mooy jottali rek la ma la jottali loo amma kii wuyu si ak kibit wuyu si loola nekkul nekkul ci sa loxo rekk mooy nga gindi nit ñi hadiya irshadin wa dalaala ndax wàllu gindee ñaari façon gindee moo am gindee ci def hidayatu ilhamin wa tawfiq ak hidayatu irshadin wa dalaala hidayatu ilhamin wa tawfiq googa yàlla rekk ko moom ginde nit ki mooy def ak jub ak baax ak gindiku ci xolu nit ñi yàlla nee na man rek maa ko moom keneen moom yonent bi bi mu nammee bàyyi taxam gindiku te yàlla nammul mu gindiku yàlla dafa ne ko innaka laa tahdi man ahbabta walakin allaha yahdi man yasha duniyaay gindi ku la soob man yàlla may gindi ku la so ku ma soob kon jël ak gindiku def ko ci xolu nit ñi bi tawfiqi wal ilham yàlla rek ko ko moom kon yow woote kat bi bu sonn ci nit ñi ne force nañu nañ la wuyu si waaye sonnal rek ci jottali leen waaye bu fekkee ni nag won nit ñi yoon wi tegtal leen yoon wi jàngal leen ko xamal leen ko loola yonent bi mën na ko woote wootekat yépp mën nañ ko moom la yàlla di wax yonent bi ne ko wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim yow yonent bi kat yaa ngi gindee jëm ci yoon wu jub wi fële mu ne ko munoo gindee fii mu ne ko mën ngaa gindi fee da koo dàqal kon hidaayatu euh, tawfiqi wa ilham fii mu dàqal mu saxalal ko hidaayatul irshaadi wa dalaala kon wootekat bi na nga xam ni kangay woo la war ci moom rek mooy nga woo ko xamal ko jàngal ko yee ko loola rek mooy sa rôle ci moom amaa nag mu si la amaa nag mu amuk gindiku amaa nag mu tuub dugg ci lislaam wala mu jàjju bàyyi la muy doon def loola nekkul ci sa loxo ci loxo yi suñu boroom la nekk subhanahu wa taala ba tey wootekat bi war naa xam ni comme dafa doon ndono ci yonent yi war na xam ni woote bii kat daf caa war a nekk giiru dundam daf caa war a sax ba fàww donte sax kenn wuyuwu ko ci kenn wuyu siwu ko dafa war a sax ci woote gi ba faw donte kenn wuy siwu ko buñ la nee nuux def na junniyaat bi manqué juróom fukk di woote ci yàlla te ba muy ba tuufaan di ñëw ña duggoon ca gaal ga weetu weesu wu ñu ñeen fukki nit te mooy ni ko gëmoon bu ñaaree yonent sallallahu la wasallam woote ne juróom benn at Omar moo nekk ñeen fukkeelu nit bu dugg ci lislaam loolu yépp lañ cey jëlee mooy ni wootekat bi bu mu yokkat bu mu découragé waaye na wéy ci wooteem donte sax woote na téeméeri at kenn wuyu siw ko yonent yàlla luut woote naa yàq yu bëree bëri waaye keroog ba yàlla di alal nitam lañ fay dégge mooy ni kenn wuyu siwu ko woon lu dul ñaari doomam yu jigéen rek la àndaloon ca keroog ba yàlla di di di ay nitam eh, beneen bi yow wootekat bi war ngaa xam ni yoolub aji woote nekkul ci nit ñi ci loxoy suñu borom la nekk subhanahu wa taala li ngay woote li ngay jàngale kenn mënu laa fay yàlla rek la mën a fay kon sa woote ci yàlla bu ci sartante ñu lay fay bu ci sartante ku lay embauché ngir nga féete woo woote bu amee nag ku daba ku tabarro te yàlla rek tax taawun ak yow alal birri wa taqwa bu boobaa loo ca amee nga xam ni yàlla la ko wërsëgal waaye bu mu doon sart ci yow ne doo taxawee woote googal lu ni dafa am ku la jël en charge pour nga mën a joxe sa woote ca anam la yàlla ko suñu borom digalee wootekat bi kon war naa xam lool ndax yonent yi ridwaanu euh, salawatullahi wa salaamu alayhim sahaaba ñoom ñëpp daawuñu fayeeku ci woote jëm ci yàlla subhanahu wa taala moo tax yàlla nan ci làmmeñu yonent yàlla nuux fa in tawallaytum fa ma saaltukum min ajrin in ajriya illa ala allahi wa umirtu an akuna min almuslimin yàlla rek a may fay kenn mënu maa fay ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam it waxoon na lu mel noonu qul laa asalukum alayhi ajran illa al mawaddata fi l lii ma leen di woo soxlawu ma ngeen fay ma soxlawu ma lu ngeen may jox soxlawu ma ngeen jiital ma soxlawu ma ngeen fal ma man daal la ma soxla rek mooy lii ma leen di woo jëm ca ngeen wuyu ma ca rek ndax ngeen man caa jaare texe eh, wootekat bi it na xam ni dafa ame taxawaay woo xam ni mooy taxawaay yu gën a tedd ci taxawaay yi amee place boo xam ni mooy place bi gën a euh, ya bi gën yàlla gën a bëgg ci jaamam euh, di wax katu loo xam ni mooy wax ji gën a rafet ci wax yi laa bu da mu yëgal boppam loolu ba tax ci biir wooteem mu yëg ci al izza ndax izza googu muy yëg ci wooteem da koy dimbali ngir mu mën a percer saa su ne di gën a yokk ak anam gi nga xam ni ci lay wootee di gën a dolli ay pexe ngir ñamuy woo man koo wuyu si ngir ak wooteem gën a yaatu na xam ni kat la muy wax mooy wax ji gën a rafet gën a taaru ca wax ya wa man axsanu qawlan mi man daa ila allahi wa amila salihan wa qaala innani min almuslimin yàlla ne ana ki gën a rafet wax wala kenn gën a rafet ay kaddu kenn gën ta rafet ay wax ka nga xam ni Ah, dafay woote jëm ca yàlla te boole ca muy def lu baax ba pare sax ci lislaam ah, di féddali saa su ne ne moom léppam da koo jox suñu borom wa qaala innani min al kon ki gën a rafet wax mooy kii woote ci yàlla ki gën a rafet jëf mooy ki nga xam ni mu ngi woote tey jëfe la nga xam ni moom lay woote jëme ca te sax ci lislaam tey ndamoo ak julli tamit kooku mooy ki gën a rafet jëf mooy ci gën a rafet wax kon yoolu aji woote ji na xam ni ca yàlla la nekk na xam ni palaas ba mu taxawee place la boo xam ni place gënu koo kawe ci kaw suuf ndax mooy wafifatu yenent yi alayhim salaatu wassalaam kon kii woote na gëm ni képp mu woo mu dugg ci lislaam ci sababu wooteem booba na xam ni kooka yool bu mu am ci jëf ya muy jëfe ci ndigal ak bàyyi ya muy bàyyi tere yool wu mu ca mën a fàggu moom dana amaale ci yoolu kooka bu doon junni nit na xam ni bis bu ne ku ne yool wa nga am wa mu am ca ñoom moom danañ ko fàggul ñooña te du tax dara wàññeeku ci yoolu ñooña loolu tax yonent bi saa sallam di wax ni man daa ila hudan kaana lahu min al ajri misla ujuri man tabia laa yanqusu dalika min ujurihim shay'a képp kuy woote jëme ci njub da am sa yoolu bopp ab yoolu képp ku la topp ci njub googa te du wàññi ci yoolu ñooña dara mu ñëwaat yonent saa sallam di wax ali ibn abi talib ne ko fa wallahi an yahdiya allahu bika rajulan waxidan xayrun laka min xumuri naami waat waat naa ci yàlla ci islaam te yaay sabab sa nga fexe gindiku gannaaw ba mu nekkee ci ak càmal ni loola rek moo gën ci yow eh, géttu gëléem goo xam ni gëléem yu mat sëkk lañu gëléem yu xonq cur lañu am na riwaaya bu ñëw bu wax ni xayrun min addunya maa fii fiha woote ba yàlla gindee kenn ci sa sabab moo gën àdduna ak la ca biir àdduna kon wootekat bi bu fekkee ni yooya ay ndénkaan la ci yu ñu jëmale ci moom ak ay melokaan yoo xam ni da ko war a melowoo naka noonu wootekat bi war naa ngànnaayoo ci wooteem ay gànnaay yoo xam ni dana ko mën a dimbali ngir wooteem mën a yaatu waaye ngir wooteem mën a tasaaroo waaye it ngir wooteem mën a dugg ci xol yi bokk na ci ngànnaa yooyu mooy mu xam mu am xam-xam saa su ne rek nay jéem di yokk ak ràññeem waaye di yokk it ak xam-xamam kon xam-xam mooy gànnaay bu jëkk ci ngànnaayu loo xam ni wootekat bi da koo war a gànnaayoo moo tax sunu borom di wax ni faalam annahu laa ilaha illa allah wastaghfir li dambik na nga xam ni lay wér mooy ni amut benn buur bu ñu war a jaamu budul yàlla kon xam ni laa ilaha illallah te laa ilaha illallah doon baat bi gën a rëy ci kaw suuf xam ko loolu du xam gu tuut loola xam-xam bu yaatu la kon borom xam bi wootekat bi dafa war a doon boroom xam-xam lépp loo xam ni dafay dugg fi itaaril xalaal ak loo xam ni dafay dugg eh, ci alxaraam xam li dagan lépp xamit li xaraam lépp loola da koy dimbali la muy digle mu xam ko waaye it la muy tere it mu xam ko dana ko dimbali mu xam ni lu war de eh, lu lu xalaal ak lu war ak lu ñu sopp loola lañuy digle jëm ca dana xam ni lu xaraam ak lu ñu sib lañuy tere jóge ca kon ràññee gi muy ràññee xam gi muy am gi muy am xam-xam dana ko dimbali mu mën a ràññee la ñu war a digleeg lañu war a tere waaye dana ko dimbali mu bañ a jaxase ndigal yi bañ a jaxase bañ a jël al maaruf def ko munkar wala mu jël munkar def ko maaruf kon ngan jëkk wa nga xam ne da war a yóbbuloo mooy mu ngànnaayoo li nga xam ni mooy xam-xam boo xam ni xam-xam bu ma sëkk la ñaareel bi it moom wootekat bi dafa war a am diqa ca la muy woote eh, ca xam-xamam bu mu doon xam-xam boo xam ni dafay doon xam-xam bu légère xam-xam bi dafa war a sew te boroom xam-xam yi nee nañu xam-xam bu sew xam alxalaal wal xara xaraam jafewul xam ndigal xam tere yi jafewul waaye bokk na ci li gën a am njariñ ci woote mooy boroom xam-xam bi na xam alaaxira ak la aju ndax boo gisee ñu ne waare waare lu baree baree bari waare waare ci lu jëm alaaxira lay doon ci lu jëm alaaxira lu baree bare bari ca loola lañuy ñuy waaree xam lu jëm ci aljanna xam lu jëm ci safara xam lay aju foofa ca bis pénc waaraatekat yi ëpp ci seenug waare foofa lañ ko war a jëmale ndax lu jëm ci julli di ca wax am njàngale la lu jëm ci koor di ca wax am njàngale moo ca ëpp lu jëm ci wax njàngale la waaye di wax di waxtaane lu jëm ci bis borom xam-xam yi nee nañu amul dara lu ko ëpp jeexital ci ab wootekat mu koy mu mu bari li mu koy wax mu xam lool lay aju ci wàllu wàllu dee lu aju ci sukuraat lu aju ci xaal yi doomu aadama bi nekk ci buy faatu gannaaw bu faatoo lu jëm ci adaabul qabri ak naimo lu jëm ci su munkar wa nakiir waaye mu fekk xam lool lu jëm ci eh, bis ba nit ñi di wuy di suñu borom bis penc lu jëm ci almizan lu jëm ci mahshar lu jëm ci siraat lu jëm ci safara lu jëm ci aljanna mu xam lu ca lu xam ko xam gu yaatu lool ndax la ëpp ci waaraate ci wàll woowa la gën a jëm lu wuutee nag la ñu xam ni moom lañu gën a miin ci sunuy waaraatekat yi la ëpp ci sunu waaraatekat yi seenu waaraate ci wàllum njàngale la gën a jëm waaye jëmut ci wàllu luy tooyal xol yi lu baree baree bëri taag waaraate tooyal xol yi mooy tax nit ñi wuyu si la aji waaraate ji war nga fexe ña ngay waar ngay jóg di leen fekki ngay jóg di leen fekki ndax woote bu mel nii ci jumaa yi ak ci jàkka yi ña mu soxal rek ñooy ñu wuyu ña nga xam ni la ci ëpp waaru nañ ba noppi ña ba noppi ñooña ñooy ñooy ñëw ci jàkka yi ñooña fekk si jàkka yi ña am cofeel ci lislaam ñooña ñooy fekk ci jàkk yi ñu bari ca ñay xam ne ñooy teew ci jataay yii koo ca bàyyil boppam mën naa demal boppam te xam la ko yàlla digal xam la ko yàlla tere ak yonente bi sallallahu alayhi wa waaye kon woote gi ah, fañ ko war a jooyale fa mu war a ëppee mooy ñi nga xam ne du ñuy teew ci jataay yu mel nii moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa daan génn di fekki ña mu daan waar yonent yi dañ daan jóg di fekk ña ñu daan waar fañ ci seeni kër noo ko wax na ko woo naa leen guddi woo naa leen bëccëg woo naa leen cig bérél woo naa leen ci yenu fekk naa leen seen i néeg fekk naa leen seeni i kër kon waarete bi ëpp efficace efficacité mooy waare boo xam ni ka ngay waar danga koy fekki fa mu ne fekki ko ca la mu ne boo xoolee mbooloo mi ëpp ci woo ci jamono jii surtout ci réewu tubaab yi ak asiatique mooy jamaatu tablir dafa bokk ci mbootuk seen réussite mooy ña ñuy waar ñoom ñoo lay fekki fa nga nekk ñu ngi ci bûche yi di waaraate ñu ngi ci avion yi di waaraate ñu ngi ci métro yi di waaraate ñu ngi ci fépp di waaraate di dugg sa kër di la waar di la woo kon ñu bàyyi xel ni waaree woote ci yàlla ñaar dafa am daf ci am solo te dafa mel ni nit ñi dañ koo xaw a ginnaaweel benn bi mooy fekki ka ngay waar ca fa mu nekk fekki ka ngay woo ca fa mu ne bu ko woo ngir mu fekk si la ñaareel bi mooy lu jëm ci wàllu dee ak wàllu xuppe ak yu jëm ci wàllu yooyu lu ci wàllu àjjana ak wàllu safara lu jëm ci wàllu bis pénc ci di ko bari li ñuy fàttali nit ñi ci njàngale mi ak ci woote bi loola laa budda it ñu bàyyi ci xel ne loola daa war a bari ci sunuy woote yonent yi salawaatullahi wa salaamu alayhim seen woote loolu daf caa bari lool la nekk ci woote ci ci ci invaar ci wax ci wàllu aljana ak safara bari na ci alquran la ñëw ci wàllu dee bari na ci alquran la ñëw ci wàllu almizan la ñëw ci wàllu assiraat li jëm ci wàllu mbugal bari na ci alquran te yooyu dañu bari dañu war a bari dañ koy wax dañu war a bari dañ koy fàttalante ndax yooyu moo mën a tooy loo xal fàttali nit ñi ragal yàlla am na ci nitu yàlla yu yu mag yoo xam ni eh, eh, cay lu jiitu ñuy ñuy sóobu ay ay dañu nekkoon ci ay mbiru àdduna kese ku deme ni ku demee ni zunnuunil misri masalan bis lay dox rek dégg kuy jàng benn am am benn waay rek ne ko alam yaani lilladina eh, amanu an taxshaa qulubuhum li dikrillah li ko delloo si loola daf caa bokk loola daf caa bokk am na nañu ne bisrul xaafi tamit laaya jooju moo tax ba mu ko déggee ci la daw summi dàll ya keroog la gëj a sol dàll ba keroog na mu génne àdduna nekk rek ci ci ci ci ci ci dal di kon waare loola daf caa war a bu fekkee ni nag lu jëm ci ñañuy woo ña ñañuy woo bari nañu waaye ñi ci jëkk mooy yéefar yi ñaareel bi bokk na ci naafiq yi ndax yéefar daa bañ ba lislaam amee doole mu wéy ci mbañam ne du wuyu si waaye teewul bu ñu bàyyi nañ koy woo te boo xoolee sunu woote daa mel ni ña nga xam ne dañoo seen bopp ay wootekat tudde seen bopp ay duaat seen woote la ci ëpp ci biir jullit ñi la te nag étape bu njëkk ci woote mooy ku dul jullit nga woo ko ci lislaam loola mooy cosaan ci woote ab jullit lu ca ëpp jàngal ko la ak fàttali ko ak laabiire ko jullit des koy laabiire des koy jàngal des koy fàttali ku dul jullit nag cosaan ci woote ñoo ñooñoo tax ab naaf cosaan ci woote naafiq yi la kon ñaareelu ña ñuy woo mooy naafiq yi ñetteel ca ña ñuy woo mooy mooy yàlla ñu lay doon ak jàngale lay doon ak laabiire lay doon kon ñii ñooy asnaaful maduwin kon woote ci yàlla bu ñuy tënk dañ naan mooy wazifay yonent yi yow mi nga xam ne nag da nga bokk min warasatil anbiya wazifa boobu boo ko jëlee bu ko bàyyil guddi bu ko bàyyil bëccëg na nga ca tegoo na ca yonent yi ridwaanu euh, salawaatullahi wa salaamuhu alayhim tegoo na nga ca tegoo na ca saxaaba yi tegoo loola mooy lii tax woote ji réussite Eh, dañu ñu jox eh, ishaara sànq ci ni ñi nga xam ne dañu doon ay gan doon suñu mbokk yi jóge misra doon biasatul azhar eh, di jàngale fii ci tóokóor ba ñoom it dañu bokk ci gani jataay bi ñu waxoon ñi bu ñu leen mënee tënkal tuuti ci ñaari minute la nga xam ni moo doonoon mawdu waxtaan wi ala kulli xaal nuraxibu bil ixwati alkiram biasatul azhar alsharif ونقول لكم مرحبا واهلا وسهلا ومرحبا بكم في رحاب هذه المحاضره وفي رحاب هذا المسجد المبارك وقد كان موضوع المحاضره هذا اليوم هو الدعوه الى الله مفهومها واصولها وقد ذكرنا مفهوم الدعوه وبينا اقوال العلماء في ماهيه الدعوه wa fi mafhumiha wa kadalika dakarna maa yataallaqu bi taarifi addaawati istilahan wa mawduci daawati kadalik wa dakarna aydan anna wadaifa rusuli eh, hiya addaawatu ila allahi subhanahu wa taala bal kaanat addaawatu ila allahi min alwajibat alcayniya fi xaqi rusuli alayhim assalatu wassalaam lakinaha aydan tadxulu fi itaari alwajibi alcayni ala kulli man tasadda wa asbaha eh, eh, warisan li arrusuli alayhim assalatu wassalaam idan addaawatu ila allahi takunu axyanan farda aynin ala badi alulama wa takunu aydan farda kifayatin ala badihim wa takunu aydan min almustahabat walmandubat ala albaqin wa addaawatu ila allahi wajibatun min wajibati kulli mukallafin xasaba ma ilmu wa xasaba ma wasala ilayhi maarifatuhu bi xaqiqati ma yudaa annaasu ilayhi wa dakarna aydan min arkaani addaawati wa min sifaati adduaati wa ma yanbagi alayhim an yaqumu biha wa ma la yanbagi alayhim an yaqumu biha kullu dalika li ajli najaaxi daawatihim wa lilwusuli binnaasi wa biddaawati ila alhadafi allati alladi rusima rusimat daawat li ajlihi fa hada huwa xulaasatu ma kunna nataxaddasu wa naquumu xawlaha fi hadihi almuxaadara wa barakallahu fi jamii al xudur wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu